dañu yàlla xiir ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la sant ci yàlla bu baax jëgn ci kenn baa secret baa sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek euh, xasida googu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 waaye yemuñ ci di ko daw rek moom ki bindi xasida gi waaye wamin kullima ak lépp loo xamee ne sax yesu noonu ñoom tubaab yi njort nañ ne àndoo naka moom ki bind xasida gi yesoo uxoo da koy naqari aw yëdduruxoo wala benn mu di lor. mu ne yàlla moo bind ca lawhul mahfuus dootu ko far nee na man Sëñ Tuubaa mi bind xasida gi muy xaraf yi ñuy bëgg a firi si te mooy saani ilaahi bil munaajaati saani ilaahi bil munaajihaati wa abadan af naa yi dinaati nee na nasaraan yëpp dañ may daw ba man sëñ Tuubaa nasaraan ci boppam loo xam ne njot nañ na rek lii man sëñ Tuubaa mën na maa naqari wala mu di ma lor maanaam dañuy daw lool duñ ko nangoo def mukk njortu lu ñaaw sax duñ ko def ci man wala loo xam ne daf may lor ndem xam nañ njort njort lii day lor sëñ Tuubaa wala mu ko naqari rek nee na dañuy dañ may daw loolu kéemaan la ci xasida gi moo tax ma ne yàlla dogal na ne anna nasaara naka nasaraan yi yafiroona danañu daw min kaati bi di bàyyikoo ci aji bind ji xaasil huruf yi xaraf waaye duñu yem ca rek di ko daw wa min kulli ma dañuy daw lépp loo xamee ne yesu noona danañu njortu ne ànd hoo moom ci bindi xasidi gi yesu hoo benn da koy aw aw yedduruhoo wala benn mu di ko lor dañ koy far daw xam nga buñ dawoon sëriñ bi rek buñ dawoon sëriñ bi rek kooku ndam la waaye luñ defee ne day naqari sëñ tubaa kooku duñ ko jëmali sëñ tubaa luñ defee ne day lor sëñ maam duñ ko jëmale sëñ Tuubaa te njort gi rek ah buñ njort ne lii mën naa lor sëñ Tuubaa wala mu di ko indil ay tolof tolof rek duñ ko jëmale sëñ Tuubaa kattaba bind na allahu yàlla tabaaraka moom mi nga xam ne barkeel na wa taala tey aj kawe ni adna haasil xasidata yi xasida ahab bu moo gën kaa sopp ilay jëm ci moom yàlla min xayril quraani ci lurul alquran wal hadis ak hadis yonente sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla bind ba tey si umul kitaab te dootu ko farate mukk ni xasidi gi man yàlla moom laa gën a bëgg lurul alquran ak hadis gannaaw ba alquran xadis yonent bi jàll xasida yi a bëgg gi xasida moo am doole waay kataba bind na ba tey allahu yàlla tabaaraka moom mi nga xam ne bàtteel na wa taala tey aji kawe ni anna haajil xasida gi xasida qaimatun aji taxawee la maqaama xasawaati taxawaayu xare mboolem xare bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosa xare rasulillahi yonent bi yàlla bi sala yàlla na julli allahu yàlla alayhi ci kaw yonent bi wasallama te mu dolli ko wa xasawaati ak xareek jamihal xusaate mboolem woy xare ñi fii sabilillahi coonu yàlla tabaaraka yàlla mi nga xam ne barkeel na wa taala tey aj kawe nee na yàlla bind ba tey ne xasida gi dafa naa li mu tuddaal rek maanaam làq na daraja yëpp daraja jaamu yàlla yëpp làq na ko ne xasida gi taxawee na ko kon xasida gi daraja jaamu yàlla yëpp da koo làq daraja jaamu yàlla goo a jël rek ci lislaam dégg nga te yàlla santaane ko xasida gi làq na ko mu ne ki bind xasida gi yàlla dogal na ci boppam maanaam xare bu yonent bi mos a taxaw di xare wala benn mu yëpp la demul sax yëpp moo xam ay saraya ay ñàngal yi wala yi nga xam ne bojjil boppam jaas itam di xeex ak noon ya wala yi nga xam ne dafa yeble yëpp ci am mboolem xare bu yonent bi mos a dem rek xasida gi taxawee na ko yool bu toll noonu yool bi laa fa ko sax mboolem ku mos a xare ci yoonu yàlla te bokkut ak yonent bi ndax am na ñu fi jiitoon yonent bi doon xare ci yoonu yàlla dégg yonent bi am na ñu fi bàyyee ci yoonu yàlla ñiy jihaat ñoo xam ne not seen bakkan not seen bànneex not seytaane not aduna moo tax xëyti jihaat yooyu yëpp képp koo mos a def nee na xasida gi taxawee na ko laa fa ko war ba tey mu ne katoo bind na allahu yàlla tabaaraka moom mi nga xam ne barke na wa taala tey aji kawe ne an na kaati ba naka ji bindi fi xuruf yi haraf def na ko allahu yàlla subhaanahu laa fa akbar tudd na mag sellam moom yàlla sërlal naa lépp lu yelut ci moom fawqa kulli man mu nekk ci kaw képp koo xamee ne baana bir na dégg nga falaahum seenug texe waxu nag ñi texewut nee na yàllaa bind ba tey dogal ca lawhul manfoos ne man mi bind xasida gi yàlla yëkkat na ma teg ma ci kaw képp ku texe sëñ Tuubaa ne ku texe rek maa ngi sa kaw koo mën a doon doon ab jaam yàlla bu texe rek maa ngi sa kaw waaw koo xam ne dana qaddamahu rabbuhu ala jamiihil aalamiina ki bindee araf yi yàlla moo ko jiital ci kaw mboolem bindee fi aalamiina koo ci génne ñëpp a ci bit kon yàlla bind ne ki bind xasida gi di man sëñ tubaa maa ngi koy sëril man sëñ tubaa moom yàlla lépp lu yelu ci bi maa ngi koy daxal waaye yàlla moo ma yëkkati ci kaw képp koo xam ne texem leer na waxu na koo xam ne texem leeru xasida gi mooy gan muy juróom yu bay ñi tëggee ko siddu xuhum yow ma yàlla di wax yow ma yan fa saadixina siddu xuhum léegi mu jël baatab siddu xuhum tënkee ko xasida gi xasida gi nag bari na luñ koy firi waaye comme dafa ñëw ci diwaan bi rek dañ koy firi mbëmbëstal talxiis muróoral kiraam jaar ci incha ndax kii topp diwaan bi bu fi yegsee man koo teewal mu ne saana poratesa na saana ñoŋalee na illaahi sama borom jihaati sama wàll bil mu naa ci ay xéwal wa ax naa te doylu loona abadan faw yëddi sama loxo xan xaati walis may wax kenn naan ko indi nee na sama wàll daal li ko jox protection ma am kaaraange du ma soxlaal kenn lu ma bëgg mi ngi sama wàll te kenn mënumaa lor kenn mënumaa fitnaal mucc naa ci gépp nax-naxi jamono mucc naa ci bépp nax-naxi ëllëg yi ma xam te xéewal yëpp dënmal si nañ ma sama wàll mucc ci lor yëpp nee na lenn la yàlla moo ma ñoŋalee sama wàll xéewal <laughs> koo xam ne xéewal lañ portege wallam kenn mësutu dégg loolu yàlla moom sama loxo du laaj kenn moom rek moo may jox moo ma doy loo ci moom sama loxo ba du ma laaj kenn kanaa léegi daal boo koy firi mooy man suñ tubaab may joxe ku ne xam ne sëñ Tuubaa mooy joxe waaye soxlul ñi di ko jox sëñ Tuubaa mooy joxe waaye soxlul kenn di ko jox xaalis koo xam ne du daan jël xaalis durul kaamil alxuraan moom la daan jël waaw kon saana porete sana saana ñongal na ilaahi sama borom jihaati sama wàll bil mu naa ci ay xéwal sama wàll daal lépp lu bokk ci man li ko protégé ba kenn du ma xamal dara mooy xéwal yàlla yi wa abadan faw ax naa doylu loo na ma yeddi sama loxo xanaa ci wala si may wax kenn naan koy jël faw ilaa yi muy dox si du ngeen mos a dégg ma ne sëñ Tuubaa diw indil ma da tey damaa banki damaa ñàkk damaa nangam te yàlla nekk fi dal la tegtal na ci sama jëmm ji al ulama borom xam-xam yay jëfee seen xam-xam yi wa awliya ak awliya u yëpp man yàlla mi nga xam ne laa yasaalu du dëj mukk xuwati yi doon ki may kattanal waaye wa awliya doon ki may pexal mboolem xolomaaw yi awliya yi yàlla moo leen tegtal sama jëmm ci xam nga lii xasida ko doon bindee ca gànnaar te sëñ Tuubaa bi ñu ko yóbbee gànnaar ñii dañ daan bee ko ñambur ñii bee ko ndar ñii bee ko Tuubaa fu ne waaye fàqee fi di dox jëmali sëñ Tuubaa xam ne foofu ko daan fekk Cooyin Jolof gànnaar ba ay taalibam yu bari sax foofu lañ ñàkkee seen bakkan ndax daan nañ leen dogaale di leen fitnaal xeeti fitnaal bu ne daan nañ leen ko fitnaal am taalibe sëñ bi ci jamono jooje dañee sayoon ci bëgg sëñ Tuubaa fu ñu jéggale sëñ beeg fi rek dañuy dox seen tànk ba yegg te jaral na leen lu ne waaw nanga nga xam ne saxaaba yi noonu la leen jaraloon ñu ànd ak yonent bi di dem ca xariya te duñ deltu gannaaw mukk noonu la jaraloon maanaam taalibe sëñ Tuubaa yi rawatina Cheikh Ibrahima Fall moo jiitoon fu mu dégg ñu ne sëñ Tuubaa fa rek dana fexe ba dem fa te duñ dellu gannaaw amu leen lu leen mën a xupp buñ noonu yoon yi sax ay gaynde ci nekk wala ay ñuy agresseur ñoo fi nekk du leen tax a ñàkk dem donte dañ leen ray bañ jeex moo tax mu ne bi mu nekkee foofu nag xam borom xam yi awliya u yëpp foofu lañ ko doon fekk bëri na awliya u yoo xam ne foofu lañ ko joxee seen bopp bu dee ci ñun sekken sekk ni gis nga ko Seydina Aliou Seck foofu la ko fekk ci gànnaar ak xëddiyaam ak jox ko boppam waaw te leeruk sëñ gi yàgg na ko gan na waaw te muqaddamam tijaan loon waaye dem na ba jëmi jamono kenn atutut ko kurub sëñ Tuubaa daf ne koy teg te leeruk sëñ ba mu nekkee gànnaar nag moom sëñ Tuubaa foofu la ko Seydina Aliou Seck fekk kon moom ci awliya yi la bokk te ba mu yeggee ba nuyu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko tur bi moo ko ne ko Aliou Seck mu ne ko waliyu sëkk waliyu sëkk nga waaw na ko sa juróom-ñaari cër yow Seydina Aliou Seck moo ma xam ne mos ñee mooy yàlla xoolal kooku sa juróom-ñaari cër moo ma xool ne mosu ñee mooy yàlla ah Seydina Aliou ne ko ah bu ma ko itam da yëgu ma ko waaw rek mën a téye cëri nit ki ne ko sa juróom-ñaari cër yi kon moom day wax ak juróom-ñaari cëri nit ki xam na lu ñuy wax heure bu ne sëñ Tuubaa mooy jëm joo xam ne bu gisee sa jëw yi sax dana xam luñ ci bind ndax am na ñoo xam ne boo leen gisee dañuy bind seen jëy ni ñii ay murid saadix lañ ñii ay awliya oliñ ñii ay kafir lañ ñii ay naafiq lañ kenn ku nekk am na ci nit yàlla ñoo xam ne bu ñu xooloon sa jë danañ gis lañ ci bind du ñëpp ko mën a xam du ñëpp ko mën a gis boobu nag kon borom xam-xam yeeg awliya yi dañ kon fekk ci gànnaar parce que xam nañ ne nag moo yor mbir yi te yàlla nag saa boo xamee ne am na ku yilif jamono yëpp yàlla mboolem ñun jamono day tàggat seen xole ngir ñi jëmali kooke moo tax mu ne dal la tegtal na aliye ci man gaa yi di ñëw ci man alama borom xam-xam yi jëfee seen xam-xam yi wal awliya ak awliya yi man yàlla mi nga xam ne lay saalu du dañ mu ko xuwate di ma kattanal man sëñ Tuubaa wa awliya doon sama pexe man amatuma sama kàttanug bopp sama kàttan mooy kàttanug yàlla sama pexe mooy pexem yàlla ku may pexal yàlla ngay pexal ku may jaay doole yàlla ngay liwatoo bëgg noonu mu ni xasiidati sama xasiida gi faaxat sut na faaxat kawe na xasaa idal kiraam xasaa itu way tedd ñëpp wattaquudu te dana womatal lii jëmee ci man abadan faw xayral maraam gën ci ay càkkuteef xasida gi moo koy def nee na sama xasida gi mboolem xasida gu nit yàlla gu gum taalif ta nag nga bàyyi ci xel xasida yiñ gërëm la wax nag waxut xam nga bind yomb na taalif xasida yomb na waaye xasida da nga ko taalif te leer du ca nekk da nga taalif xasida doo dégg taalif ba loolu yëpp day am ci xes taalif yi mu ne xasida gi nag féetee na kaw xasaa it ñu tedd ñëpp ta xasida gi ci boppam lip lu ma doon sàkku xasida gi moo ma ko jox xanaa li mu wax ci tarjumaan ci rek doy na loolu rek ku ko am fekk ko jamono bi te xasida gi rek mel na ni ku taxawee xar yonent bi moo sa xar yëpp sa diggante ak nasaraan bi ngeen amoon yëpp xasida gi moo ko lijjanti ah na ni waa màkk yi nooy màkk yi noonu yi nga xam ñoo noonu yonent bi ca màkka dégg nga ba tax yonent bi gàddaay dem Madina ñi daan ko gund xatal muy daje ñoom daan xare ci ñoom mboolem xare bu yonent bi salaata mosa dem an di duma ay noonam yooyu xasida gi taxawee na ko yooyu sa noonu bopp ñi nga xam ne ñoo ñëwoon jël si la mbàkke baar yi nga daje ñoom jéewal ñu yóbbu la ca géej ga xasida gi moo leen duma ba nga tàggu ñoom kon xasida gi rëy na de kon loolu rek wali taqudu abadan xeeral maram ca la bokk kon xasida moo moomee womatal ngën ci sama càkkutef la wax nag ngën ci sama càkkutef hëddiyati samay hëddiya muxjilatun aji gàccal la kulla malik bépp buur kaana boobu nekk na munaasihan di aji xëccoo yëfi adduna wa axsaahu te gàccal na ko sax almaliku yàlla muy buur yi nga xamee ne mooy may yi may jëlee fa yàlla may yi nga xam ne day bàyyi ko ci yàlla di ñëw ci man nee na buur yi aduna yi nga xamee ne xëccoo alali aduna rek moo leen ñor si nga buur yi képp kuy xëccoo ñoom ñoo la dàq xëccoo borom alal yëpp noonu lañ dem ah même sax bu dul buur yi borom alal yi noonu lañ mel loo ñàkk-ñàkk alal tey bëri na borom millionnaire boo xam ne boo doon xëccoo ak moom cinquante mille wallahi yaa koy bàyyee loolu yàgg na ci lislaam jàng nañ ci saaru wu mel ni suuratu Daawuda amoon na fa juróom-ñeent fukki wëllu yu juróom-ñeent fukk nag wëllu mooy nag yu ndaw yooyu ak juróom-ñeent maanaam téer boo xam ne benn rek ci manqué kenn koo xam ne moom benn wëllu rek la am léegi nag mu muy lan ci benn wëllu yoom benn wëllu bi ngir lan bëgg jël benn wëllu bi teg ko ci mu am téeméer wëllu te kee moom benn rek laam nag ah ñi di gegante di ko géegante ba yegg ci jamono jooju daaw daa fi nekkoon yonent yàlla daaw mu laaj leen li ngeen jotee kenn ku nekk nettali ba dem mu ne ko yow bi nga ko laajee benn wëllu bi rek ci nga ko toll waaw bi nga ko ko laajee rek boobu nga ko tooñ waaw laaj gi nga ko laaj wëllu yi rek ngir bëgg koo jëmee sa 99 wëllu yi boobu nga ko tooñ ndax wa inna kasiran minal xulataa la yabxi baxduhum ala baxdi ñu bari ñuy jaxase alal ñi rek la ñuy def léeg nga fekk ñoo xam ne ay mbokk lañ dañuy jaxasantoo bokk benn gétt waaye léeg-léeg ñuy tooñante kenn ku nekk dañ jublu waaw di nax sa morom di trian sa kon kii 99 wëllu yi nag wëllu mu ngi ko am kii nag mu amul lu benn wëllu léegi borom 99 di langanteeg borom benn wëllu yéen loolu doy waar de te kii bu ko seetaane mu jël benn wëllu bi te moom mu ngi 99 te kii benn rek te mu koy bàyyi benn bi kon. kon xëddiyati sama xëddiya musjilatun aji gàccal la kulla malik bépp buur kaana boobu nekk na mun naa seyaan di aji xëccoo yëfi aduna bépp buur bi xëccoo yëfi aduna rek di dajale alal rek te alal rek tax koo jóg nee na may bay ci yàlla di ñëw ci man moo la ëpp. tawa axsaahu gàccal na ko sax moom buur boobee yàlla muy buur day wane kenn du di nga taat moom di ëppalante ak moom xam-xam lu dul yàlla gàccal la ko. maha farna tawajjuha nasaara jublug nasaraan yi dégg nga lii ci man allahu yàlla moo ko def mooy faal ji bi laa ilaha illallah mu ngi ko defee ci doole laa ilaha illallah nee na nasaraan yi bu ma demee ba tàggoog ñoom te kenn dootuma jublu yàlla moo ko dindi moo ko effacé far ko ci man waaye nag ci mbuutum laa ilaha illallah la ma dàqalee tubaab bi nasaraan yëpp moomu ci ñoom. moo tax na maxaa far na tawajjuhan nasaara jublu tubaab bi allahu yàlla moo ko far maanaam liya muy ñëw ci man maanaam dootu ñëwtu ci man mu ko faree nag bi laa ilaha illallah ci mbootum laa ilaha illallah mbootum laa ilaha illallah secret yi ca nekk anwaar yeeg asraar yeeg tëjiliyaat yi ca nekk yëpp bisriyaat yëpp dégg nga irsaar yi ca nekk yëpp maanaam ci lu ko euh, yàlla dàqale ma mboolem xeeti nasaraan yëpp kon xasida googu foofu la yem léegi mu dugg ci xasida goo xam ne da barakaati xaalallaahu maanaam barke bi nekk ci xaalallaahu xaalallaahu ba tey mooy xaalallaahu xaasaa yoma yem foo na waaye ñaari baat yooyu la ci soxla maanaam barke bi ci nekk maanaam nee na moom lay nettali li ko yàlla defal ci xaalallaahu barke bi ci nekk moom lay nettali fii ma li muy nettali biir xasida lu ko yàlla defal la ci barkeeb xaalallaahu ji mu ne bismillah yi sos na ma sama wax ci lu turu buur bi arrahmaani buur bay xéewlaa kon bépp mi def ci àdduna arrahimi tey ajiram ku soog ci alaxira mu ne maa ngi tàmbale ci tur yàlla yàlla muy xéewlaa koon ñëpp ci àdduna tey ajiram ku soog ci alaxira waaye wasalla yàlla sax dàkk julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad wa ala ali ak kaw ñoñam ña wa sahbi ak saxaabaam yëpp wasallama tam dolli ko wóolu tasliman ak dolli ko wóolu maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy sunu sang turam mooy Muhammad yàlla yàlla dolli julli ci waa këram ñi ak saxaabaam yëpp te dolli sëlmal ci moom waaye nag waa nasara maa ngi koy ñaan mu saare xaala abyaati ci kaw bayit yi xaasi yii barakaati xaala lahu barkeeb wax ji mu wax xaala lahu maa ngi koy ñaan bayit yii ma ko tënkee yàlla maa ngi koy ñaan mu wisaare ko sama kaw xam nga baata barakaati xaala lahu la tënkee xasida gi léegi nag muy ñaan bayit yi mu ko tënkee maanaam barkeeb xaala lahu bi bayit yi làmboo ko nga xam ne barkeeb xaala lahu gi barakaati xaala lahu gi mu tënkee xasida gi barkeeb xaalalaahu gi yàlla wax ci alquran secret bi day sotteeku maanaam ci max naa bayit yi nga xam ne kii jàng xasidi gi barkeeb xaalalaahu gi mi ngi sotteeku sa kaw mbuutum xaalalaahu mi ngi sotteeku sa kaw mbato wa nasara maa ngi koy ñaan muy saare ala abiyaate ci kaw sama bayit yi xaasi yi muy saare ci lan mooy barakaati xaalalaahu barkeeb bi nekk ci xaalalaahu xaala mooy wax na allahu yàlla maanaam wax yi muy wax barke ba ca nekk noo ko wisaare ci barke bayit yi ci bayit yi may bëgg wax muy baraka lil baaqi bila intihaa'i fii samani wa bayon tixe tihaa'i barke boobu moom lay wax nag maanaam xasida ci boppam na barkel maanaam ni baatab xaala laahu barkelee xasida gi ay xurufam ay ay bayitam na ko barkelee noonu mu ne baaraka na lii ñeel ma albaqi yàlla mi fee sax ba fa faw tëddu faatu bilantiha i barkeel gudul am yemukaay fii sama ni ci sama biit njëg gi ma jox wal bay xon te jaay gi ma ko jaay marchandise ma son tixaay borom daytal la mooy jeex mu takk nee na yàlla mi fee sax te du faatu barkeelal na ma njëg gi ma jox njëg xam nga boo ko doon misaal rek euh, boo amoon xaalis lu mel ni deux cent mille jënd ci marchandise te xaalis bi barke marchandise bi barke mu leew la dong man nga cee faj say soxla di ci faj sa soxla kër di ci fajal jàmm seen soxla waaye boo takkoon ay millions jëndee ko marchandise mu jeex te barkewut da ngay toog rek mu jeex takk barke rek am solo ah mag ñi daan nañ bu yoroon ab si 10 000 daan nañ ci dund ba lu leen sopp waaw ah, waaye léegi fi ni 10 000 boo ko dajjoon léegi mu jeex léegi barkeetut 5000 boo ko dajjoon léegi jeex na léegi léegi sax yegg na ci million boo ko amoon boo ko boo commencé rek jeex na a waaw 500000 boo ko yoree boo ko commencé jeex na kon xaalis barkeetut kon lépp ñëpp njëgg lay ñaan yàlla barkeelal ko ko ndax bu barkee rek dootul jeexati lu barke du jeex barke du jeex waaw luy jeex rek barke nekkul waaw sa place bi lu muy ñàkk ñàkk marchandise wala lancim bu ci barke defee bu ci yàlla defee barke wallaay nit ñi dañ ñaan yow fooy jëlee xaalis waaye du duul sa place bi loolu lañ lay wax kon barke rek mooy li am solo waxoon naa leen du jëmm waaye jëmm jum nekk rek dañ koy xam waaw waaw Sëñ Tuubaa barke lañ ko toppee barke bi nekk ci moom moom lañ bëgg kon nag yàlla mi fee sax ba faw barkeelal na ma njëg gi ma jox te du am yemukaay maanaam barke bi du dog mukk waaye njaay ma moom jeex na sama digganteek moom jaay naa ko ko jox na ma njëgg njëgg barkeel na ko rabbi naa fii sama ni laj ci njëgu laj dégg dégg nee na naa ci njëgu laj laj waxoon naa leen bu ko waxee mooy fanweer ak ñett yi nga xam ne da koo jaayantu xoon ak boromam na du ci dellu mukk ci xeeti marchandise te mu dekk lekk-lekk yoo xam ne yu dagan la yu teey la mënoon koo lekk waaye na xay na la la waxoon Sëriñ Tuubaa lu tax mu doon jaayante loolu yàlla mooy lu mel ni saari pom ak banaan ak mandari xeeti lekk yi nga xam ne am nañu ko bëgg lool maanaam moom yëg ne ne saa bu koy lekk dana yëg bànneex boo xamee ne fàtte na yàlla loolu la yëg te moom diggam ak yàlla bëggul ci doxale kenn déedéet xam nga tey man bu mu doon lekk pom pom bi neexaay bi dana tax mu fàtte yàlla banaana bi neexaay bi dana tax ma fàtte yàlla léegi diir ba ngay fàtte yàlla noonu au lieu que ngay fàttali ko yàlla moom defe na ne buy lekk pom léegi neexaayi pom bi la yëg waaye du ci yëg yàlla moo mu jaayanteeg lépp yàlla dootu ko lekk boo déggee jaayante bi rek mooy lekk yu dagan yu neex yi la jaayante ndax dafa xoolal nag lim ko jëndee sëñ bi nga daan fekk ay laax boo xam ne dañ koy xorom rek wala duñ ko xorom du saf dara du saf suukar du saf dara moom dara lekk wala mburu moo xam ne da koy boole suukar di ko jas mooy lekk yu xeeb yi nga xam ne jamono yi boo ko jox joxoon ab taalibe sax da koy el bu gisee yeneen lekk day bu di gisee yeneen lekk moom taalibe bi day bàyyi lan ko jox noonu te xoolal sëñ Tuubaa nee na yàlla jox na ma adduna ak li ci biiram te waaye nee gisuma si sama bopp kon soxlul adduna ki soxlul adduna mooy kooku mooy adduna yëpp jox nañ la ko nga mën a xëy bis boo xëyee joñ ay ganaar togg ay ganaar yi gën neex bis bu la neexoon sax boo xëyee bis bu ne nga rey ab gëlëm bis bu ne nga rey ak gëlëm lekk wala la asim te yow loolu nag sa xel mosu cee nekk kon kooku la adduna dikk mu dëdd ko bàyyi ko ne le te terewul nag jekku na adduna de nekku ne dëdd adduna ki dafa ñàkk jekku adduna waaye dafa jekku adduna ba noppi daal di koy dëdd wan ko gannaaw kon rabbi tutoon xunaa fii sama ni laaj ci njëgu laaj mooy ñaar fukk ak muy fanweer ak ñett yi ma jaayantoon ak moom njëg ga ma ca jox ma jox ko marchandise ma toru naa ca mooy am naa ci bénéfice bu bari bari bari bu doon ñaar ñuy jaayante nga ne bi ma jaayee marchandise ma waaw bi ma la jaayee marchandise ma nga jox ma njëg gi maanaam am naa ci bénéfice nga ne masalan ma jëndoon marchandise 5000 léegi nag dem jaayaat ko 50000 xam nga am naa ci bénéfice léegi nag noonu la mel sëñ Tuubaa digam ak yàlla noonu la mel kon nag bi mu jaayee yàlla marchandise ma yàlla ma ngi koy jox njëg ga njëg bu bëri la ko ci njëg bu bëri nga ne bu gisoon njëg gi da nga naan marchandise bi dëgg-dëgg njëg gi moo ko ëpp yàlla dafa baax rek jox sëñ Tuubaa njëg gi waaye nag marchandise mi tollu doon wa samanin ak njëg ga nga xamee ne moom damaa iri aji nëbbu la wataa ba teel na lii ñaan ma sama ni sama jamono xam nga dalaa wax ne naa ci njëgu laaj muy fanweer ak ñett yi waaye am na beneen njëg goo ne ay damaa la ay marchandise yoo xam ne yu nëbbu la yu ñu yàlla yoo xam ne bokkut ak yi ngay mën a xam ay pomaki banaan ak kafe tubaab ak dox bi xool asamaan ak xaar nelaw ak xeet boobu yëpp da ko jaayantoo yàlla du ko def yàlla fay ko ci lam ko ci fay waaye am na ay dama iri la marchandise moo xam ne kenn xamul ko diggam ak yàlla rek loolu xelam doomu aadama mën koo xelaat waaw waaw am na yoo xam ne bu ñu la ko waxoon ci sëñ Tuubaa te ko daan def da nga naan li raakoon sëñ Tuubaa doonutoon nit ndax nit ku yàlla bind da ko daan def lu mel ne ay xesanoog ay xokkutoog yëpp di ci yëg bànneex sëñ Tuubaa du ko daan def te bu ñu la ko waxoon da kon kaakoon sëñ Tuubaa doonutoon nit mu ngi noonu kon wasama ni ak njëg goo xam ne damaa iri aji nëbbu la waaw loo xam ne sama diggante moom képp ko xam yàlla moom teeyal na sama jamono sama jamono yi may dund yëpp teey na ndax bu dee laaj gi jot naa ci njëg gi waaye ak dama yi ma jaayante moom yi xam ne ay masjid yu nëbb la kenn du ko xam ku dul man ak moom jox na ma njëgi ba tey toon naa ci ñaari njëg yëpp karramani teral na ma albaqi yàlla mi fee sax ba fawtudu faata bi ci kat nug ja dégg nga waxaade womat na lii jëmee ci man yum naxoo barkeem fii la saati ci sama bànneex sama bànneex yàlla mi fee sax ba faw teral na ma ci kat nug jëmam ja maam dafa xool jëmam ja nam toll ca tolluwaayu jëmam ja mu terale ma ca daw <laughs> waaw yàlla mi xool ni mu toll ci kattanam mu terlee ma noon man sëñ Tuubaa waaye nee na bànneex bi ma yëg ca moom nee na ma caa dugalal barke lépp lu ma yëg ci xeeti bànneex rek yàlla dafa ma caa defal barke sama bànneex yëpp sama bànneexu yëpp li ma yëg ci sama digganteeg sama borom yëpp yàlla daf ma roofal barke xam nga bànneex dana am bànneex da nga bànneexu ni te la ngay bànneexu amul barke waaye nee na suñu borom dafa jël jëmmi barke samay bànneex yi may bànneexu sama digganteek moom au lieu que lekk yu neex ndax lekk yu neex yi nga man a bànneex moom jaayante na ko yàlla léegi li muy bànneexu mooy diggam ak borom da caa def barke. wala benn lekk yu naqar yi nga xam ne du saf xorom du saf suukar nga xam ne bu koy lekk yàlla la ku ci defal barke yàlla la ko ci bindal payoor ak ti tiyaab waxaada womat na liy jëmee ci wan yumnuhu ak barkeem fii la saati ci li nga xam ne mooy sama bànneex askuruhu dana ma ko sant bileel mi ci xam wala arsaaxi ak wërsëg yi wala misal dañul mukk dinaa fi di aji jëriñu ji rasaata tey wër sa galaakoon yàlla maa ngi koy sant ci xam defal na ma xam-xam ak mboolem xeeti wërsëg yi jox na ma ko mboolem xeeti xam-xam yi jox na kon danaa ko sant ci ñaar yi xam-xam ak ndax moom kat dañu dañu mukk di aji jëriñu yi fu mu toll mi ngi jëriñ ay jaamam waaye rawatina man dañu mukk di wërsëgalaakoon ñëpp boo leen di wërsëgale waaye rawatina ak man kon tànn foofu ba tey dana ko jublu xilaami samay xëlim ak bopp wal fu aadi ak sama xol bi wal jasad ak yaram wi li sukuri baaxañ jëm ci cant yàlla mi fee sax ba faw tudd faatu xat xamaani moom mi ma xaaral boppam xaan xasat wala képp koo xam ne dafa kañaan ñu ne samay xalima sama xol yëpp danañu jublu yàlla ak sama yaram yëpp maanaam sama jëmm lépp daal bu dee yaram weeg xol beeg xalima yi may taalife yëpp dañuy jublu di sant suñu borom subxanahu wa taala mi nga xam ne moo ma xaar ba képp ku may kañaan yàlla musal na ma ceew mënoo maa lor loolu sa bopp ngay lor. xaada womat na lii ñeel ma yàlla muy aji jëriñ ji. ma loo xamee ne yedd xoo dana ma woo ilaa sukkurin jëm ci cant kërimin aji tedd ja nga xamee ne yuqali di koog dana beelal lii ñeel ma yuqali dana saxalal lii ñeel ma al ilaa ay xiwal nee ne aji jëriñ ji womatal na ma loo xamee ne moo may woo heure bu ne ma koy sant moom mi tedd ki xam nga boo amee ngor dëkk dëgg nag nit ki saa bu ne bu lay may dee ko nemmeeku di ko sant xamal ko ne ko ah, yaa ngi may defal léegi moom la suñu tuwaa jëfandikoo fii nee na yàlla lim may defal moo ma woo ma di ko sant parce que yàlla daa digle bu la defalee xéwal nga di ko sant doomu aadama bu la defalee xéwal nga war koo sant balaa yàlla di yëg ne sant ko ko ndax doomu aadama bu la defalee xéwal te yàlla la xéwal ga bee ko waaye yàlla nee na bala maa ne sant nga ma da sant kama ma jaarale xéwal ga dégg kon ku santu nit mënoo sant yàlla ah fokk bala ngaa sant yàlla da ngay sant nit kon yàlla muy aji jëriñ ji womatal na ma loo xam ne moo ma woo ma jëm ci di ko sant moom muy aji tedd ji ma jox ay tiraangaam nga xam ne heure bu ne mi ngi may saxalal ay xéwalam du ma sa du ma sa tàggoog man ay xéwalam alhamdu mboolem xeeti cant yay ñeent dégg nga wa sukuru ak gërëm yëpp li rabbil alamin ñeel na yàlla muy borom bindee fi ab xaa salaamahi gën kaa sax julli ak sëlmal alal haadi yàlla na ko sot ci kaw yonent bi nga xam ne mooy aji gindee ji al amin mooy ko ñu wóolu ko nee mboolem xeeti cant yi nit ki def yëpp ak xeeti gërëm yëpp waaw nga xam ne nit ki masalan bu la defee bu la defee dara nga ne billahi yow sant naa la sant goo xam ne bu fekkoon ne am na lu ko féete kaw ma def la ko bu fekkoon ne gërëm am na lu ko féete kaw def la ko nee na jël naa mboolem xeeti cant yeeg gërëm yëpp ko ci yàlla muy borom bi ndax li tax li ma am yëpp moo ma ko defal waaye nag gën kaa sax julli ak sëlmal yàlla na ko yàlla julli ci kaw yonent bi nga xam ne mooy aji gindee ji waaye mooy ko ñu wóolu ko sallallahu alayhi wasallam xam di sama cantu xol li laay ñeel na yàlla wa sukri ak sama cantu cër sayidina yàlla na ko sotti moom yàlla ci kaw yonent bi nga xam ne mooy sunu sang yi Muhammadun turam mooy Muhammad kooku moy kan mu ne baabil ola mooy buntub kawe nee na sama cantu xol ñeel na yàlla wante sama cantu cër ñeel na yàlla waaye may cant gi ma koy jaaree yàlla na ko yàlla dollee sotti ci kaw yonent sallallahu alayhi mi nga xam ne mooy sunu sang bi ñun ñëpp mboolem bi def seen sang turam mooy Muhammad mooy ku yàlla sant léppam waaye mooy buntub kawe kawe genn rek mooy yonent sallallahu alayhi wasallam ku ko topp fok da nga kawe ax naa niya doyluloo nama bihi ci moom allahu yàlla anil muluki walis buuri adduna yëpp wabil maa yi na ma ci aji far bàkkaar ji te mooy yónent bi anil suluki walis may suubu beneen yoon budut yoonu yónent bi sallallahu alayhi wasallam ma doyluloo ci moom ma def ko muy sama buur di sama président lu ma bëgg dem laaj ko ko mu jox ma ko waaye bu dee président adduna yi buuri adduna yi aw ma ceeg ñoom kenn benn affaire te duma dem ci buntu buur kenn di ko seeti kon yàlla moom ma doyloo ci moom ba nga xam ne soxloo ma buuri adduna yi waaye ba noppi itam aw ma weneen yoon wu may jaar jëm ci yàlla wudul yoonu yonent yàlla moo a doyloo ni ma doyloo ci jëmam ji ba du ma soxla lenn di ko ñaan buur yi noonu la ma doyloo ci yoonu yonent ba du ma jaar ci weneen yoon xuttu wamat naa lillahi jëmee ci yàlla muddatan ab diir tawxiid yi sama tawxiid xaa idat di aji wamat ba tey am daahin ay tagg ilal wahid jëmee ko ci yonent ba nga xam ne mooy ki wér ci biir bi ndefi womat naa jëmee ci yàlla ab diir boo xam ne dama doon wéetal yàlla di womat rek di tawhid di wéetal yàlla di wéetal yàlla képp samay xale mu wéetal yàlla rek ci nekk. waaye ba noppi nag boole ci di tagg yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mooy alwahid fil wara mooy koo xam ne mbindeef yëpp da caa wéet moom moom amut kuñ koy gam-gam la di ko tëkkale bi yàlla nekkee kenn dégg nga nekk mufrat nekk fardu yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la nekkee wahid ba tey donte kenn yàlla ak kenn bokk na waaye yàlla bi mu nekkee kenn bi da ko bind muy kenn ba tey ci bit nit ñi yàlla moom nag al muxaalafa la alxiyaam bi nafsi waaw mu ngi noonu bu dee ab yonentu nag moom doonut al muxaalafa bi nafsi al muxaalafa waaye alxiyaam bi nafsi doonu ko yonentu dañ koy taxaw léeg-léeg te itam dafa niroog mbindeef yi ci wax ci jëf ci melokaani ci lépp kon womat naa jëmee ci yàlla ab diir sama tawxiid waaye ak womat naa ay tagg jëmee ko ci yonentu sallallahu ni may womatee ay tawxiid di ko jëmee ci yàlla noonu lay womatee ay tagg di ko ci yonentu laxoo ñeel na ko moom yàlla xittaa bi sama waxante ak moom alyoma tey jii bi sukóori ànd koog di ko cant walam yesalte dañun mukk di raafi an di aji yëkkatiku ji sakkuuri tey santaakoon nee na yàlla moom dong dong lay waxante ak moom di communiquer ak moom tey jii ànd ko fu ma toll di ko gërëm di ko sant di ko félicité ndax moom dañun mukk di aji yëkkatiku ji doon koo xam ne day santaakoon te ku ko sant itam mu dolli la ku ko sant itam mu di la pay di la dollil xëddiyat yi samay xëddiye min ko muy bàyyi ko fa yaw bi leen tixaayi te du am fu muy yem mukk jaa at dikkal na ma wasay yi sama dox bi soon tixaa yi daytal bi la ko jëm ni ci yow yàlla kot samay xëddiye yi bàyyi ko fa yow yàlla heure bu ne ñu ngi may dikkal te duñ mos a jeex te dox bi may dox nekk ci biir tukki bi nekk samay biit noon kooku dox bi jëmul ci noonu jëmul ci kenn jox ma jëm ci benn dëkk waaye dox gi jaamu yàlla gi yëpp la ko laal mooy yàlla ci yàlla laa béy ko waaye ci yàlla lay delluwaat kon hadiyati min ka bilan tihaayi jaa at waseeri la ko son tihaay kon xasidi googu barakaati xaala jeex na xaala lan moo ci topp ba tey muy xaasa yow ma ñan foo saadix na léegi la tënk ci xasidi waaye lii ne da ko indi ci tarjumaan ji mujj ji di wane max naa aaya ji maanaam lépp barke ba suñu borom sotti kon sotti na ko ci biir xasidi mu ni xaasaa lii nag yow ma yan foo mooy bis la boo xam ne dana jëriñ as saadiqina woy dëgguñu si duxum seen dëggal ña jaaroon nañ ca ñooñu lahum ñeel na leen janaatun ay aljana yoo xam ne tëjëri dana daw min tanta ci roon aljana ya alan xaaru sewnde yay ñeent xaali diina mbir mu ñuy wéy biel fii ca aljana ya abadan dappat radd ya yàlla na doolee gërëm allahu yàlla anu walis leen wara da ñoom it gërëm nañ xan walis yàlla te saali ko loolee alfawsu moo di texe alancib gudaa ji màgg lillahi aji sax la ñeel yàlla mulku samaawaati nguurug asamaani juróom-ñaar wala ardi ak suufi juróom-ñaar wa maa fii ne ak li nekk seen biir ak lim liñ ëmb yëpp waxoo moom yàlla xadirun ajaam kàttan ala kul seen ci lépp lëf jaaroon nañ ci. léegi nag mu dalaat geneen xasida boo xamee ne moom la tënkee fa quttiha daabirul qawmi lasiina sallamoo fa quttiha daabirul qawmi xam naa xasida googu moom day jëm rek ci wàllu jihaad yi ndax max naa ay jooju moom lu muy xam na xaw naay raglu ah, lu lu lu wolof di wax dagg sa gat <laughs> dagg sa gat waaw ah, moom lay yi la ko yàlla di wax nag mooy dog nañ gannaaw yi nit ñi nga xam ne ay tooñkat la mooy dagg nañ seen gat dañ doon jaay réew rek waaye dagg nañ seen gat ñoom ñëpp mooy ñoom ñëpp a nañ leen waaw. mu ne bisimilah sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xéwlaa kon bépp mbindeef ci àdduna arrahimi buur bay ajiram ku ko soob wasalla yàlla julli allahu yàlla taala moom mi aji kawe ala sayidna ci kaw sunu sangi muhammadin turam mooy muhammad wa ala ali ak ñun ña wa sahbi ak sahabaam ya wasallama tamu dollikoolu tasliman ak dollikoolu mu ne maa ngi tàmbalee ci tur yàlla yàlla muy xéew laa kon ñëpp ci yonante aji yëram koo maa ngi dagaan ci moom yàlla mu julli ci yonante bi nga xam ne moom yàlla mooy aji kawe maa ngi dagaan ci moom mu julli ci yonante bi nga xam ne mooy sunu sang bi turam mooy muhammad maa ngi koy dagaan mu julli wàll ci waa këram ak sahabaam yëpp te dolli sëlmal ak wóolu ci kama ansala kom ni ngi mu wàcce alayhi ci yonente bi asalaatu julli wasalaam ak sëlmal alayhi yàlla na doole nekk ci moom comme ni mu ci moom xawluhoo waxam ji nga xamee ne wax na ko moom yàlla tabaaraka moom mi nga xamee ne barkeel na wa taala te aji koy te mooy fa xuttixa daggees nañ daabirul xawmi gati nit ña gati nit ña <laughs> mooy gannaaw yi nit ña allasina mooy ñi nga xamee ne sàll ay tooñkat lañ mu ne yàlla dagaan gi ma mu julli ci moom yónent bi julli ci waa ak saabaam yi ko koy dagaane comme ni muy wàccee ci moom yónent bi salaay salaam aaye wax ji muy wax ji mooy tax daabirul xam lay sëlmal comme ni muy wàccee ci ko wàccee ci yónent bi maa ngi koy ñaanee ne muy julee noonu ci yónent bi fu mu toll di sëlmal ci waxtu ne moo tax ma ne kama ansala comme eh, nga alayhi ci salaam ak sëlmal ba tey xali yàlla na doole nekk ci moom lay ay tooñkat lañ